waaw soxna Fatou Tall tey ñu ñëw fekk la Mbarsa Tilène quatrième jour weeru koor bi euh, gis nañ gaz bi amul ndugg mi cher na yow loolu lan mooy sa ah dëgg neexu mais ndugg mi moom dafa cher nit ñi li ñuy dépensé te xam nga euh, maanaam doole yamul waaye maanaam euh, nit ñi bu ñu xëyee dañuy dugg ci marché bi dangay gis jaboot goo xamante ni tey li mu yor dooleem bariwul. te bu ñëwee ci marché bi lépp cher ndugg mi cher ceeb diwlin lépp cher amul dara lu seerul boo demee ba 5000 francs mënatu la ne affaire yi métti na. te bépp jeeg buy dugg marché boo ko joxee junni bu nekkee kër gi xaw na yaatu tuuti junni munu ci dugg munu ci am ceeb diwlin ak jën daanaka boo jëndee jën ci boo jëndee ci 5000 bi jën mu jeex waaw man jeeg ji dugg marché nag laay waxal waaye ñi nga xam ne xam xamuñu lu xew ci marché bi taxuñu maa wax mooy ñiy dugg marché xam li xew ci marché bi buñ leen joxee junni bu ci jëndee jën mu jeex. yow léegi boo amoon euh, appel booy lancer lan man su ma amee appel bu may lancer président mooy maanaam dund bi yomb. ndax suñu maam yi ak suñu papa yi li tax ñoom ñu mënoon a am di mën a économie pour am ay kër wala ñu am ay terrain dund bi dafa yomboon jamono boobu mais suñu génération bi pour nit am ci kër wala nga am terrain ah du yomb wala sa liggéey suñ borom dina la teg loxo lool pour nga mën ko am comme xam nga euh, loo góor góorgóorlu ci affaire dund rek lay yem li ngay am yëpp ci dund lay yem. dëgg yàlla sama nee cherul damay fen cher moom def na ko waaw ba pare baykat yi jël nañ seen tool yëpp jaay ko chinois yi bu njëkk bu njëkk ba dañ doon jëndee saako carotte 6000 francs heure bii nii daan nañ ko jëndee 10000 ñu jëndee suppame 6000 léegi loolu yëpp amatu fi léegi ñoo ngi def loo xamante ne ay saako suppame 14000 20000 21000 carotte ñoo ngi koy jëndee fu mu nekk nii 22500 boole ko transport bi dafa metti yaa ngi dégg lépp nag waral ko nag lu dul baykat yi jël seen tool yëpp dem jaay ko ndax bëggum xaalis yaa ngi dégg man moom mënu maa laase dara ci Macky Sall ndax Macky Sall li mu def lu mu def mën def na ko ba pare momit dafa wara wañi wàññi nguur bi ceeb bi kilo témèr nga xamné ñun dépense 1000 francs lañ ñuy jox dépense 1000 francs ñun mënu ñoo duggé 1000 francs li baru ceeb ñeen fukk ah dafa cher kilo jaay non parfumé bi doon jar 250 légui 350 lay jar kilo wala walaatu diwlin 400 400 sa lay jar lay wax yaa ngi dégg dafa metti dafa cher ndax di nga bëgg lek lu baax lo nek nek ba do lo so yorul yorul di nga bëgg dund lu baax parce que marché bi neexul maximum maximum di nga yo 10 francs pour nga meuna dug gaz mom kenn waxatu ko gaz ak keri nga ci yem lepp a yow Macky Sall yow lay waxal yow Macky Sall na wàññi dund bi seer na waaw bu wañe dund bi mom 3 ans mandat lay laaj na wàññi dund bi na top ci ginaaw jigen ñi baña top ci ginaaw xalé goor xalé goor sen intérêt bop la war waaw jigen ni ñoy fal yaangi deg ñun jigen ñoy waxtaan ak jëkëri ñu ne sandilal Macky parce que Macky mo la jappalé